Mas é que mais. waaye nag mu jëm ci bis bu mag boo xam ne nii njaar ndém la muy dajeek xale boo xam ne ni naan la muy doomu yoof def ay preuve ci làmb ba war a dajeek ñagas ñagas it def ay preuve ci làmb war a dajeek doomu yoof loolu wolof di wax naan wuréw a dem na këng toll nañ fa wax nag nag demagul dañ taal waaye wuréw a dem na këng ñagas ñu ngi lay nuyu aouzu billahi mina seytaan rajim ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur bu baax baax di sant sama yaay di baax a baax aw ma sama papa di sant sama papa bu baax a baax a baax di sant képp ku may jàppale maa lay sant di la gërëm di sant waa Colobane di sant waa Kombelane gi ma juddoo gi ma yaroo oo ma seen fay muy xale muy mag muy ndaw ñoom ñëpp ak tunu bawol fépp foo xamante ni dëkk yaa ngi wër Kombelane rek maa lay sant di la gërëm di leen félicité bu baax a baax oo ma seen fay kontaan naa bu baax gis naa ñaan gi yëpp ak si na waaw di leen wax ne seen doom moo xewle moo aye waaw di talal loxo yi rek di ñaan waaw jour bu dimanche incha allah le 20 ma defalal doomu Yoff bagage si kàttanu yàlla daan ko jël bu nga defaral doomu yoof yaa ko wax est xam nga doomu yoof mi ngay bëreel ak dayo bi mu am ci làmb bala maa wax si doomu yoof damay sant ba pare door wax si doomu yoof moom man ak moom waaw làmb booleewnu quoi dafa moo tax moom ñu war man ma jël ko quoi mais daa def ay problème ci lamb dañu gas. doomu yoof doomu yoof lamb boolewul rek moo tax ma jël ko. mais bu dee bëre bëre maa ko dàq bëre bu dee lépp ñu nekk si làmb rek man maa ko dàq kon instant nii bu dee man ak yoof rek ñàkk adversaire moo tax ma jël ko waaw mais man ak moom làmb boolewul waaw. lan nga indi lan nga nar a indi keroog parce que gis nañ ñagas ay combat dafay abrégé làmb ji arbitre day soufflé rek mu dox ci kaw adversaire bi def li muy def dem est ce que doomu yoof yaakaar nga ni mën nga ko def loolu. ku dul doomu yoof sax su taxee ma def ko loolu laaj li ma koy wax jour ba rek si kàttanu yàlla nu taxaw rek dëgal boppam waaw mu taxaw ñu bëre bu neex ma dàpp daan ko jël bu rëy waaw. gis naa nga takk gan sànq yaag sa coach loolu nar xeex wala. xeex ba génn RTS damay xeex ba génn RTS 1 dama koy jàpp dóor ko dóor métti waaw du ma bëreeg moom du ma bëreeg moom waaw damay xeex ak moom. wër yàlla ne boo daanee combat spécial ci grand combat nga jëm nan nga waajalee combat bi. waaw di ko waaj comme ni ma ko daa waaj rek ak samay mbokk ak képp koo xam ne yaa ngi bëgg ñaga rek ñu ànd du waaw di waaj combat bi waaw ndax samay mbokk bàyyi na ma benn yoon ñoo ngi may toppatoo guddeeg bëccëg waaw. lépp lu war si man ñoo ngi koy def kon ama seen fay képp koo xamante ne nag yaa ngi bégg ñagas maa lay sant di la gërëm ama seen fay trop trop seen fay quoi ñagas da ngaa jël risque xam nga la mooy da ngaa jël risque da nga jël combat ñëpp ne yaa mën yaa doole parce que da nga jóge ci triplé saison saison passée da nga bëri deux trois combats trois victoires doomu Yoff jóge ci deux combats deux défaites saison passée nga war a am foo xool mais da nga gestu danga nga ko may sens instant bi man bi ma ne si naa ñagas dama ko ne ñagas bu la jëlee dalaa may sens parce que man dañuy jokkoo sa adversaire ma ne ko nag boo jëlee booy bi da nga kaa may sens est-ce que instant bi toll nga ci maye sens du tax nga gestu jël risque may ko sens lan moo waral lool. non du jaageen maye sens sax ndax ñi ma war a bëreeg man ñoo bëreelul ko man ñoo ragal danoo daw. ah dañ daa ragal dañ maa ragal nañ ma jël ñi war a bëreeg man ñoo ragal moo tax ma xam ne instant yi combat bi waruma ko date bi waruma ko bàyyi quoi waaw ndax samay supporter sosunu ma lool quoi dañ ne ma bëreel fu lamb jot rek nga bëree quoi bëreel ma sant kon du ma fi toog gars yi di daw quoi xam nga doomu Yoff ñëw fi ne soxla na ñagas ma ne ko ah am problème na ñëw rek ma jàppale ko. ñagas numéro 2 sa premier combat dans l'arène nga bëre kan. sama premier combat l'arène bébé Ama laa bëreel. nga jàpp ko daan deuxième combat arène nga bëre kan. Vita ma daan Vita. nga jàpp Vita daan troisième combat nga am kan. troisième combat ma daan kii Boston. nga jàpp Boston daan quatrième combat nga am kan. bébé Eumeu Sène. nga jàpp bébé Eumeu daan cinquième combat nga am kan. ma daan kii Caatu Waalo. Caatu Waalo bu Grand Yoff sixième combat nga am kan. ma am gorofil daan ko. daan muy 6 combats 6 victoires. waaw septième bi loo nar. incha allah doomu Yoff laay teg bi. loo nar septième combat bi. septième combat bi yanu ba sa kaw teg si suuf. bu arbitre sifflé génn seen diggante. moo mu ne mu ne mu ne la bu arbitre sifflé génn seen diggante mu ne la ñagas kaa ñu bëree lan ngay def. dinaa ko dóor gauche droite daw jëli ko. bu arbitre sifflé mu ne la kaay ñu xeex looy def. dama koy dóor gauche droite daw jëli ko. bu arbitre sifflé mu ne kaa ñu xeex looy def. xeex ak moom ba génn RTS. xeex ak moom ba génn RTS. sa waa ji loo wax. Ñangas na maa lay nuyu bu baax. damay dégg doomu Yoff keroog ci face à face muy dafay ñëw ba Colobane di la suivre mbam di xam nga ne ko maanaam dalay espionné. loolu ku la bàyyi xel rek moo koy def man bàyyi ma ko xel sax moom xool bu doon bëri fii bu doon bëri fii ma koñ sax xool du ko sax xool ne moom mooy ngi bëri fii quoi. mais dafa xam daan Ñangas lu muy signifié. waaw ah, ku mësul daanu boo ko daanee dafa am fu mu lay yóbbu. da lay taal jërëx da lay taal jërëx daan Ñangas mais loolu nag mooy problème pour mu daan Ñangas ay dayo combat bi dayo xam nga fan la toll si yow xam naa ko bu baax a baax man du ma am combat di ko xeeb wala ma koy tuutal xalaatuma ko sax ndax ñi ma yaakaar dafa bëri te ñi nga xam ne ni sonn si man dafa bëri trop kon combat bi yoon la ma teg suwaay lu metti door koy def affaire door a fa mën a fay gars seen bor bi quoi est-ce mu na yow wax ji nga ci am mais amoo ci leneen après le combat nee na yow da ngaa bëri wax nee na yow da ngay wax rek ku xam ñagas de xam ku xam ne moo ko moom moo ko moom mais man ña nga koy wax promoteur bi tëgg làmb ji bi mooy sa deuxième journée mu mu lay tëgg petit petit Ibou Sène petit lan nga koy wax waaw promoteur petit di ko sant di ko gërëm rek waaw bi mooy deuxième waaw journée ma koy bëre quoi daanaka aar su ma ko bërelee bala maa si daal daf may waat téléphone ne ma kontaan naa seen gis naa mobilisation bi kon damay dugal sama journée mu waxtaan ak waa staff yi wax sama entraîneur sama sama xam nga père Bada ak euh, ñoom Ndoye waaw waxtaan ñoom sama staff ñoom Tafa Ndiane ñoom Ngoti après suñu jubooyee rek amul problème victoire victoire ci doomu Yoff fan la lay yóbbu. yóbbul ma fenn dama ko may saas rek yóbbu ma fenn ndax du man ak moom. waaw du man ak moom quoi bañ a ba gars yi bañ a bëre man rek moo tax may bëre moom quoi kon dafa am feneen foo teg say bët am na feneen fu ma teg sama bët te boo jógee ci combat bi foofu nga jëm waaw bu combat bi jàllee incha allah ba ma may gars ndam lu set waaw bu boobaa nag laa ko yóbbu fu mu ayoo xanaa rafetlu nañu euh, teewaay bi yëpp assistance bi ñagas ni mu wax lépp ñëpp dëgg nañ ko mais leen rek moo ma jaaxal ñagas dafa sous-estimé adversaire bi de trop bi open press bi lépp loo wax mu ni maa man ñaga sama man ji nga foo ko teg nee na da ko jox cër jox ko li moom waaw jàpp daan ko tàggatool sant gërëm woote nag woote gars ñu ñëw jàpp ci blogu piqué yi non violence aussi non non non bawol bawol moom dama leen di jay mais amuñu violence ñii lamb la naa sànq dama koy waxaat fi ngeen dégg ah. benn open press open press su tey bi laa mës a taxaw gis juróomi mbër yu mës a daanu yow mësoo daanu. fils de Katy mësul daanu. yaa may dégg non non non non on est des du question de catu kenn. ñii dañu leen di ñu moom c' est pour dire que am cër ci làmb du question que ne catu kii que ce soit. yaa may dégg fils ngi ci yoonam Mor Kankang mi ngi ci yoonam euh, kii carrière numéro 2 mi ngi ci yoonam. Euh, kii di BMW mi ngi ci yoonam ce qui veut dire que ne da ngeen gëm làmb da ngeen koo bëgg te da ngeen am da ngeen ci am cër ko gars waaw ginnaaw ma sant yàlla jël seen di sant sama ñaari waajur bu baax waaw maa ngi woo gars yi waaw di woo sama dëkk di jàppale ma bu baax a baax di woo képp kuy bawol bawol maa ngi lay woo si combat bi nga jàppale ma waaw ba kombelaan ba përgin guy gu ndaw njaana njaay jokkaan nganjal njaarga lambaay nguy gu ndaw njaar njaarga ngangu nëy përgin kombelaan di woo waa njaan di woo waa seew waa tubaatul waa reefan waa newraan waa ndangal ma fépp foo yaa ngi fépp foo xam ne yaa turu Bawol daal maa lay woo si combat bi ngeen ñëw jàppale seen doom seen xarit seen doom ndey njëgas di woo rek waaw ñëpp seen fay waaw waa Colobane maa leen di woo ngeen ñëw jàppale seen doom waaw ñëgas 2 waaw mu ñëw jàpp di woo di woo waa Gore waa Gore maa leen di woo waaw bu baax a baax di woo waa Colobane bu baax a baax a baax waa Midina sama pap fi mu dëkk waaw maa leen di woo bu baax a baax waaw uma seen fay dinaa ñu sonné si man quoi rendez waaw di sant sama gars yëpp waa staff bi waa staff Ndiaga Studio maa ngi sant bu baax a baax sonnoon si man bu baax a baax di sant sama écrit waa di sant sama kii sama ménageur Père Bada bu baax a baax di sant Père Bala waaw 100 pour cent Bawol bépp maa ngi leen sant di leen gërëm waaw di sant sama doomi baay yëpp Mbay Mbaaw sama chauffeur bi waaw maa ngi koy sant bu baax a baax day sonn si man waaw ama fayam sama si gars yëpp maa ngi sant bu baax a baax waaw di sant Adama Diop sama mag bi waaw di sant bu baax a baax di wax gars yi di wax gars yi aj bi na ko aj quoi ñu jàppale ko aji ko waaw ndaxte lamb ak coow moo ànd waa waaw waaw ak maire bi ko may fii te maa ko son bu baax a baax maire maire bi nga xam ne moo may fii nii ma teg fii sama open presse maa leen di wow ñu ma di leen sant itam bu baax a baax waaw Cheikh Diouf maa ngi koy sant bu baax a baax sama grand frère aw ma fayam maa ngi koy sant bu baax a baax Moustapha Dione Ngote Moustapha Diouf Abdou Ndiaye ferrailleur maa ngi koy sant bu baax a baax di sant Abdou Ndiaye waa Thiaro ñëpp aw ma seen fay maa leen di sant bu baax a baax sonal si man waaw di sant bu baax a baax a baax sama kii sama papa sama papa Baye Maam waaw aw ma fayam day sonn si man gis naa ñaanam yëpp di sant waa Gambi waaw ñoom Cheikh Kara di sant waa Gambi bu baax a baax waa Espoir aw ma seen fay waa Cité Imbécile maa ngi sant sama mafia bi foofu waaw leen sant bu baax waa Jean bi sama gars yi maa ngi sant bu baax a baax waaw aw ma seen fay ngay woote bari na xanaa da ngaa tiit non non damay sant sama gars yi xam nga rek bëgguma bàyyi kenn quoi Ndiame Diop sama mag bu baax maa ngi koy sant waaw aw ma seen fay quoi rendez-vous waaw sama yaay awloo maa ngi koy sant bu baax a baax day sonn si man guddeeg bëccëg waaw di sant Njaay Njaay borom Colobane magati Colobane maa ngi di fay bu baax a baax waaw mba mbaaru yaa jee maa ngi di sant bu baax gars yi képp koo xamante ne muy magat maa la maa ngi di sant bu baax El Hadji sama grand frère waaw moo alliance Pape Cheikh Diallo moo ma indil seen musique bi gratuite waaw gratuite waaw Abdou Abdaro Abdaro maa ngi koy sant bu baax a baax waa safa safa trafic borom fii borom fora waaw di woo waa forage yëpp ñu ñëw jàppale ma si combat doomu yof sa dernier mot ci doomu yof doomu yof ama leen lu ma koy wax jour ba rek laa koy wax li ma koy wax quoi muy jàpp ko dóor ko daan ko si kàttanu yàlla yéen